kii jataay bi nu baaxoo amal àllarba ju nekk ci waxtu wi mu jëm ci téereb sunu borom bi subhaanahu wa taala nu war a tàmbale tey jii ci walqamara manazila xatta aada kal urjun al qadim so Abubakar mën ngaa ñëw nga jàngal nu dañu war a tafsir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق والنهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون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 اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينظرون يشركون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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

waaye léeg-léeg duñ ci bàyyi xel mu ne jant bi nga xam ne moo ëpp fuuf suuf si te tàngoor wi di agsi ba ci nun nu koy yëg ci ciimtaani yàlla yi la bokk jant bi amal na doomu aadama yi ay njariñ yu bari meññat ak ñorom aju na ci ba ci sax jumtukaay yi nga xam ne moom lañu yor di ko jëfandikoo muy ak leer mën nañoo wax ne yasara gaa nga bàyyi koo ci jant bi mooy énergie bi tey li ñuy wax courant yi ci am na laale ak jant bi sunu boroom subhaanahu wa taala nattalee ko noo xam ne bu nu jege woon lu tuuti rek lépp lakk lépp def ab doom waaye bu nu sori woon itam tuuti rek lépp way mel ne glace sunu borom subhanahu wa nattale ko moom ak weer wi wax ko ci alquranul karim jant bi doxiinam woowu ak noonu ko yàlla sama borom saayu taabe saa ca lay nekk bu doomu aadama yi xëyee gis mu génn fale ca soow ba ca penku ba ca fenku ba fa lay fenke di yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk ba ni muy nekk ci digg asamaan si fi kabidi sama ba ni muy rëccee jëm fa nga xam ne fa lay sowe loolu lépp di ay kiimtaan yoo xam ne sunu borom subhaanahu wa taala mooy ki ko nattale moom yàlla mi ko nattale nag day koo xam ne daa not lépp moo tax mu ne daalika doxiinu jant bi niñ tërale jant bi taqdirul aziz la nattalek yàlla mi nga xam ne mooy aji not lépp yàlla mi nga xam ne amut lenn lu mën a génn ak noteelam al alim waaye yàlla mi nga xam ne mooy aji xam ji neewoon naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam masoon naa laaj abu dharrin ne ndax xam nga jant bi bu génnee di dox di dem ana fan la jëm abu dharrin ne allahu wa rasuluhu alam mu ne ko jant bii day saa yu génnee di dox dox bu gaaw a gaaw dox bu gaaw nu nag duñu yëg gaawaayu dox bi mu ngi mel ne ak fëxal naaw gunu romboon di dem nii da ngay mel day dox ndànk boo ko dee xool nii maanaa li ñuy avion bu la romboon nii di dem day mel ne day dox ndànk fekk maanaam ay euh, sifa yu mag a mag lay dog te doo ko yëg jant bi itam gaawaay bi jege na dayoo waaye doomu aadama yi fii ci kaw suuf duñ ko yëg ndax da leen a sori lool xoolal avion boobu nga xam ne mën naa am sax nu ko raw ni la soree nu ko raw rawaat ko noonu la jant bi soree te teewul gis nga bu dee bu la rombee fii dox day mel ne day euh, day day yéex fekk aha kay yéexul waaye daf laa sori yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne day wax ci kumpa nee na day dem ba arash mu sujootal fa sunu boroom subhaanahu wa taala di digloo nag ba xam danañ ko jox ndigal ngir mu fenkaatam déet suñ ko joxee ndigal buñ xëyee gisaat ko mu fenk buñ ko joxoon ndigal nag dégg nga mu fenke fee nga xam ne fala daan sowee te loolu ci màndargay bis penc yu mag yi ci la bokk mooy ñu xëy rek gis jant bi fenke fee nga xam ne fa la daan sowee euh, borom bi subhaanahu wa taala mi ngi nuy bàyyiloo xel ci xéewalam yu rëy yi nga xam ne mooy tax nu mën a dund fii ci kaw suuf waaye ci kiimtaan yu mag yi nga xam ne dañ caa mën a jaare man koo wéetal xam ne moom rekk la amul màppandoo amul am ndend amul kenn kuñ koy gam-gam leel ci dara mu teg ci ne wal qamara weer wi wala nga jàng wal qamaru loo ci jàng baax na qiraa mutawaatira la wal qamara weer wi qaddarnaahu dan koo nattale manazila ci ay kër weer wi dafa am li ñuy wax ay manazil manazil yoo xam ne àgg na ci ñaar fukk ak juróom-ñett guddi gu jot ak manzil bi nga xam ne fa lay nekk maanaam ay kër lay nuróol yoo xam ne sunu boroom moo nattale manzil bu nekk diir bam fay am manzil bu nekk diir bam fay am nga xam ne buy soog a génn moom jant bi wala weer wi buy soog fenk buñ ko séentoo ba gis ko day gis mu tuuti lool lool waaye dugg googu muy dugg ci këram yooyu te kër gu nekk yàlla nattale diir ba fa war a am noonu lay deme di dem di dem di dem ba yàgg nga gis ko mu daal di rëy lool ne dàng ci kaw digg asamaan si ne dàng ci digg asamaan si nga di ko xool di ko gis waaye weer aw doxiinam daa nuroog doxiinu doomu aadama doomu aadama buy tàmbali day néew doole day tuuti di tuuti di tuuti ba yàgg muy rëy di rëy di rëy ba yàgg mu delluwaat nag fa mu jóge woon delluwaat fa mu jóge woon di defaat nam daan def ba muy doon gone di jabbutu naax néew doole lool weer wi sunu boroom yàlla nee na man maa ko wutal ay kër yoo xam ne ca lay ne ba lim bim war a mm, am mat xatta aada bam dellu gannaaw boo xamee ne hilaal la woon ba yàgg mu nekk badr day dellu kal urjuunil qadiimi mel na cëggub tàndarama boo xam ne bu yàgga-yàgg la loolu nag Euh, ku tàppe rek ci google bind suuratu al urjun al qadim danañ la ko wan nga gis ko mu leer maanaam cëggu tàndarama maanaam bant bi ci boppam bu demee ba nga xam ne yàlla daa dogal mu yàgg day mujj euh, day mujj def nii day lunk day lunk nii ni mu ni woon nii day mujj lunk nii maanaam maanaam forme bi muy yor melokaan bi muy yor day nuroog teru teyu bi soo génn noonu mi mel noon ni muy def nii ni muy mel nii moom teru teyu bi soo génn dégg nga bu demee ba nga xam ne mat na ba romb albadr day delluwaat melaat noona noonee muy melaat nag la yàlla nuróoleeg alxurjuun alqadim loolu moo tax man la ngir mu gën a leer ci sa bopp mu mën ngaa mën ngaa jàkkaarloo ak moom su ma noppee sax mën naa leen ko euh, bu fekkoon am na image bu gën a yaatu dama leen koy wan ne mi ngi nii nga gis ko nga gis ne suñu borom yàlla subhaanahu wa taala niral gi muy def ci terute yu bi soo génn ak al urjuunul xadim day gis ne amuñu lenn lu leen teqale ci nuroo waaye rek foofu liñ fiy jànge rek mooy weer wi ak jant bi ci njariñi doomi aadama yi la bokk ndax mooy tax ñu mën a xam weer yi mooy tax ñu mën a xam at yi huwa alladi jaala shamsa diyaa walqamara nuura wa qaddarahu manazil li ci dop li taalamu daa bëgg ngeen xam adada sinin nga ni fi toll tambe ñoo ngi dund waaye deux mille lan lañ ne deux mille vingt lañ nekk bu dee ci almilaadi bu dee ci maamul milaadi xam nañ ne ñu ngi ci deux mille trois mooy ñaari junni at ak ñaar fukki at ak ñett te loolu ci doxiinu jant bi lañ ko xamee wala sax ñu dellu ci doxiinu weer wi ñu ne ñu ngi ci mille lan quatre cent ah mille quatre cent quarante quatre gis nga ko mille quatre cent quarante quatre nga xam ne kon limu at yi ñaata la waxtu wu nekk doomi aadama yi dañ koy xam te sunu borom yàlla dafa euh, dëxëñ sunuy njariñ ci maanaam weer wi ak ci jant bi lépp rawatina sax weer wi ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ weer yi aji ci lañ koy xamee alxajju ashhuru maalumaat shawal dul qeeda ak fukki fan ci dul xijja nga xam ne bu tàbbee rek ñi war a aj ñëpp dañu xam ne ah weeri aji de dugg na kor itam ak koor gis nga niñ koy xàmmee ay jaam yàlla yu rëy yoo xam ne ko cee war a def su fekkoon du jant bi bu fekkoon du weer wi dañuy nattal rek duñ ko mën a xam kon sunu borom subhanahu wa eh, yemut ci bind jant bi waaye dafa leeral jant bi lan moo tax mu bindal nu ko nun lan moo tax mu tàggatal nu ko nun waaye weer wi itam lan moo tax mu tàggatal nu ko lépp daf koo jàngale ci alquranul karim mu leer nañ wal qamara qaddarnaahu alqamara dañ koo nasab ci fi'al joo xam ne dañ ko fa nattale maanaa qaddarnaa alqamara waaye qaddarnaahu ji nga ne moom mujje ñëw topp ci alqamara moom ba dana koo firil mi ngi mel ne wa kulla insaanin alzamnaahu mi ngi mel ne zaydan darabtuhu boo ne woon zaydan darabtuhu soo bàyyi woon darabtu noonu rek te tab bañ cee def damir dañ naan kon zaydan darabtu moo ko nasab soo ne woon qaddar naa noonu rek bàyyi ko defoo ci damir kon dañ naan alxamara naa moo ko nasab waaye alxamara fi'al bi nga xam ne moo ko nasab nga fi'al biñ tudd ginnaawam moo koy firi wal qamara boroom yàlla feeñ na ci bu baax a baax ndax jant bi wala weer wi buy soog a door dañuy gis leer gi néew doole lool muy gën di yokk di gën di màgg di gën di màgg ba yàgg mu doon albadr mat sëkk waaye di wàññeekuwaat di wàññeekuwaat ba delluwaat fam nekkoon noonu la doomu aadama mel ci njëlbeen gi day tuuti lool néew doole lool soo ko rombe romb te bàyyiwoo ci sax mën nga koo daaneel waaye day dem ba yàgg mu dëgër lool ba mën a yanu sax loo xam ne si day xaw a diis lool waaye noonu lay deme ba yàgg ndeysaan mu delluwaat fam fam jóge woon fii itam dégg nañ fi ne alqadim alqadim maanaal euh, melal yàlla ci al awwal melal yàlla ci al awwal moo gën a dëppoo ak alquranul karim huwa al awwalu wal axir lu tax ndax alqadim man nga kaa jox mu doon melow loo xam ne loola ci boppam daa sosu ndax al urjuun bii nii ku ne xam ne ne daa sosu ku ne xam ne ne dafa sosu te teewul yàlla jox ko si fop lan alxadiim alqadim moo tax ñi nga xam ne dañuy euh, tudd yàlla di ko tudd turoow duñ ko bàyyi noonu dañ koy firi bu ñu ne qadim rek faaw ñu daal cee teg ne moom amu fu mu tàmbalee amul fu mu tàmbalee wa illaa boo nee xadim rek ab tabax boo xam ne si mën naa njëkk ci dëkk bi mën nga ne binaa un qadimun te tabax boobu ko ne xam ne daa sosu waaye boo nee al awwal nag ni ko suñu borom yàlla waxee ci alxuraan huwa al awwalu loolu moom mooy gën a mucc ayib su boobaa li ma jubloo wax rek mooy alqadim des na ko melal loo xam ne am na fu mu tàmbalee am na fu mu tàmbalee borom bi tekki ne la shamsu déet jant bi yambagi laha muy jaadu ci moom an tudrikal xamara muy jot weer wi maanaa weer wi ci guddi gi lay nekk jant bi ci bëccëg lay nekk ni yàlla lootaabe ci kàttanam jant bi mënul dab weer wi maanaam mënta feeñ ci biir guddi gi déedéet jant bi mënul feeñ ci biir guddi gi sunu boroom yàlla ci nattale gu ànd ak xam-xam mënul daje moom jant bi ak weer wi ci guddi gi dégg nga jant bi mënul daje ak weer wi ci genn guddi moom kay dafiy nekk ba yàlla dogal mu suux guddi gi daal di ñëw ci biir guddi gi ci la weer wi di feeñ noonu itam walla laylu déeb guddi gi saabiqu nahaar mu mën a jiitu bëccëg gi wala laylu saabiqu nahaar maanaa jaaduwut te du doon lu jàppani ci guddi gi muy ñëw ci jamonoy bëccëg jamono joo xam ne ñu ngi digg bëccëg maanaa guddi gi di ñëw loolu itam mënul nekk loolu am piri la wala ne yàlla daa dàq fi guddi di jiitu bëccëg bi maanaa guddi du jiitu bëccëg guddi balaa ñëw rek bëccëg yi day jeex fi mu toll nii tembe mënuñoo nekk ci digg bëccëg gi ni wala ñu nekk ci catul bëccëg gi rek guddi gi daal ñuy gane xaat nu daal di génn bëccëg gi newoon déedéet loolu mënul nekk ndax su day mel ne ñoom ni leen yàlla sa boroom note fi leen yàlla sama borom jaarloo day mel ne kon dañoo rëcc mu ngi mel ne doomu aadama mën naa euh, régler dara régler dara waaye mu jékki-jékki rek loola rëcc ko delluwaat ba lu bëree bëri yàqu te loolu bu fekkoon ne am na ci jant bi mbaa mu am ci weer wi diggante guddi ak bëccëg kon jafe-jafe bi mag mag mën naa am guddi gi bu fekkoon ne tey dañoo nekk ci digg guddi gi ñu jékki-jékki rek jant bi ne dang ci digg asamaan si fekk boobu nit ñaa ngi ci seen lal yi ah, mën naa am sax ñaa seen soxna ya loolu kon dana doy waar loolu hmm? waaye bu fekkoon ne ñoo nekk ci digg bëccëg yi tam nekk ci digg bëccëg yi ba kii njëg-njëg rek guddi gi ne saraax dugg mën naa yàq lu bëree bëri kadalik moo tax lenn lu ci nekk rek suñu borom yàlla daf koo natt natt boo xam ne daa tegu ci xam-xam moo tax mu ne dalika taqdiru al aziz al alim al aziz mooy ki nga xam ne moo ko taqdir al alim al aziz al alim kon la shamsu yanbagi laha an tudrika al qamar wala leylu saabiqu nahaar mu ne wa kullun benn bu ne ci ñoom moo xam jant bi la moo xam weer wi la benn bu ci nekk mi ngi ci benn fëlëg ab benn kutumbal bu mu nekk benn kutumbal yasbaxuuna di ca féey maanaam di ca dox loolu ulama yi dañuy wax ne kullun ji tanwin gi ci nekk tanwinul iwad la tanwin xam ngeen ne ay xeeti tanwin yu bari dafa am am na tanwinul muqaabala am na tanwinul tankir am na tanwinul iwad tanwin gi nekk fii tanwinul iwad la maanaam dafa dafa wotti daa remplacer maanaam benn bu ne kullun ci jant bi mu tuddoon kullun ci weer bi mu tuddoon benn bu ci nekk dafa am benn madaar dana kutumbal boo xam ne fii fa ko yàlla sa borom jaar loo mu fay jaar te du ko jéggi mukk gis nga bu fekkoon ak lëj wala am lëj daa am ci àddina bi ni ko yàlla tërale kon du baax ci doomu aadama yi jant bi fi yàlla jaar mu fay jaar nii bu teggi woon rek ni doomu aadama di dawale otoom ba yàgg mu jekk-jekk am lu fàbbeeku ci moom rek oto ba saaraan dugg ci benn barab sàngam bu fekkoon ne jant bi noonu da ko mas dal lu mel na da ko mas a gaar kon moom jafe-jafe bu mag a mag a mag day am waaye xoolal ba yàlla bindee jant beeg léegi xoolal ba yàlla bindee weer weeg léegi ñuy dox doxin woo xam ne si maanaa am lëj amu loolu rek la fa nekk ci xam-xamu yàlla ak la fa nekk ci yonatelu yàlla yàlla rek xam suñu indi woon ñi nga xam ne alfalaki yoon ulamaul falak lañ ñu jox leen laay ji ci seen xam-xam ñoom danañ ca wane lu gën yéeme waaye gannaaw nga xam ne falak nun du sunu taxasus dañuy jaar ci laay yi ni mu doone wane ne borom bi subhaanahu wa taala daa jàngale ne jant bi daa jàngale na weer wi ba ci sax biddiw yi am na sax ñu dugalaale ci kulun jooju ne am nu jum day dugalaale ci biir donte ñi ko génne dañoo wax ne dañuy xool siyaaq bi mooy li jiitu kullun yàlla weer dafa tudd akub jant waaye tudd fa ay biddiw waaye ala kulli xaal mbooleem loo xam ne mi ngi ci àddina bi moo xam ci asamaan si la nekk di weer wi di biddiw di jant bi lu ci nekk rek am na benn madaar fu ko yàlla sa borom di jaar loo nga xam ne moom du teggi xool baatu kullun fii falakin yàlla sa borom di xamle loolu baat bi ci daa mel noonu baat bi ni lay def boo jëloon kullun fii falakin nga bind ko mën ngaa tàmbalee ci eh, kaaf gi nekk ci falak daa eh, romb laam gi daa am kullun faa gi nekkoon ci falak ak yaa gi nekkoon ci fii mu nekk mu jox la fii faa gi nga ne moo tàmbaloon fii nga boole ko ak laam ga ak kaaf ga mu jox falak bi maanaam nii la baat bi def maanaam maanaam mi ma mi baat bi yor maanaam moom la baat bi yoraat ba tey loolu nag loolu ci ulamaawul euh, balaaxa ñoom am nañ lu ñuy wooye al aks wala inikaas lu mel ne rabbaka fa kabbir maanaam rabbaka fa kabbir soo ko wëlbatee loolu lay joxaat ala kulin loolu min baabi al euh, du wax al musaadafa ndax suñu yàlla ci alxuraan moom dara nekku ci musaadafa Euh, waaye ci maanaat ni yàlla sa di euh, jële baat yi nga xam ne ci lay wax li bëgg a wax da koy nattal mbub moo xam ne si du ko cëkk dégg nga waaye tam du ëpp da ci yam baat bi yàlla sa borom jël di ci wax ab maanaa maanaa moom ak baat bi dañuy dëppoo bay benn kullum fii falakin yasbaxun am nga ma ku ma mën laaj nag ne waa ah, awa yasbaxuuna lu tax yàlla di wax yasbaxuuna te tudd bi mu ñaar la fi tudd doxul yasbaxaani dégg nga ne xanaa ne yasbaxuuna indi damir joo xam ne si lil aaqil la yii dañ leen a tanzil manzilatul uqala ndax gannaaw asabxu wal jarayaan liñ ci miinoon mooy ñu koy wéer ci loo xam lu am xel la daw jaraa sabaxa féey na liñ miinoon mooy ñu koy jëmale ci loo ne lu am xel la moo tax suñu borom subhaanahu wa taala ci laay ji mu jëflanteeg baat yi niñ jëflanteeg maanaa lañ ko miine woon mu daan ànd ak moom jaraa dañ koo miine woon muy ànd ak lu am xel sabaxa féy na dañ ko miinoon muy ànd lu am xel wala nga ne ñoom yii ñu def ni ñuy def nii muy jant bi ni muy def nii ak weer bi ni muy def dafa mel ne defiinu ko am xel la ndax di jaar foo xam ne si doo ko teggi faw foofa ngay jaar loolu doxiinu ku yorum xel la loolu moo tax suñu borom subhaanahu wa taala du fii dong waaye wax na ko ci beneen barab euh, fa qaala laha walil ardi walil ardi tiya tawan aw karaha qaalata atayna taaiaat lu ñu wax taaiina la wax mbokk yi sunu borom subhaanahu wa taala euh, daf nuy jàngal fii ci ji li wane na jant bi maanaa ñi jàpp ne du wandeelu laay ji mi ngi leen di rodd ñu ne jant bi dana dégg noonu rek waaye du wandeelu laay ji da di rodd dégg nga borom bi subhanahu wa taala eh, xamal nañu itam ne jant bi weer wi guddi gi bëccëg gi lépp ci ak noteelam la nekk lu ci nekk rek ci ndigalam lay dox daanaka mën ngaa wax ne ci mbindeef yàlla yi doomu aadama dong moo ci feddi géew léeg-léeg di def lu ñu ko def wut waaye jant waaye weer waaye guddi waaye bëccëg amu ci benn boo xam ne fa la yàlla jaarandoo danga ko teggi doomu aadama rek moom mooy faral di euh, teg gi fi nga xam ne fi la ko suñu borom yàlla di jaarloo borom bi tekki kina wa aayatun lahum annaa hamalnaa durriyatahum fil fulkil mashhuun wa aayatun kiimtaan lahum ñeel na leen kiimtaan koo xam ne mën nañ cee xame sunu kàttan kiimtaan ga lum doon annaa nun yàlla xamal naa sëf nañ durriyatahum wala durriyaatihim lan mooy durriya dañoo miinoon durriya ñi war a juddu ñi nga xam ne ci sa njaboot la ñuy bokk durriya loolu lañ ci gën a miin waaye durriya itam baat buñ ci miinut lool te ulama yu bari bari di ko tekke laay ji mooy al usul mooy fi nga xam ne fa doomu aadama fàqe mooy cosaanu doomu aadama mooy ay maamam mooy ay baayam baatu zurriya ñu jëfandikoo ko jublu ci ay usul loolu du luñ miin ci làkku arab waaye dafa am ulama yi lu tax ñu waxe noonu ci laay ji euh, moo di lan bu dee dañ cey jublu sunu sunuy cosaan maanaam ñun ay wànqaas lañ sunuy cosaan da koy tàmbalee ci maam nuuxin mi nga xam ne sunu boroom yàlla subhaanahu wa moom la liggéeyloo woon ak gaal mu liggéey ko mu sont ko mu dugg ci biir gaal gi moom ak njabootam mu daal di raaf àddina bi moom yàlla subhaanahu wa nga xam ne ñu judduwaat ginnaaw bi ñépp mooy njabootu maam nuuxin wa jaalnaa zurriyatahu humul baaqiin bi gaal gi teeree mboolem ku dugutoon ca gaal ga suñu boroom dalaa raaf nga jóge ci àddina bi léegi nag ñi judduwaat ginnaaw bi ñu ngi jaare ci wànqaasoo ci maam maam nuuxin léegi sunu mm, cosaan yooya nga xam ne ñoom la yàlla sa borom sëfoon ca gaal ga gaal bu diis gann goo xam ne alfulkul masxuun masxuun mooy loo nañ ko duy ba mu fees gal lenn lu nekk ñu jël góor ak jigéen boole xarmu mu góor xar bayu góor bayu nagu góor nagu yooyu borom bi dafa ne fasluk fiha min kulli zawjayni ithnayni nga xam ne gaal ga maanaa lenn lu nekk akum tollanam dañ ko caa dugal sunuy cosaan muy sunuy maam sëf ga leen suñu borom yàlla subhaanahu wa taala sëfoon ke biir gaal googee muy gaal gu feesoon del del del del loola la yàlla sa borom di ñaxe ndax kat gaal googu bu muccutoon nun dooñu fi gis fi ci àddina amul kenn kuy dox fii di mbindeefum yàlla lu may nga xam ne bu gaal ga muccutoon doo nekk ci kaw suuf yàlla moo desal ña juddoo ca ña mucc ca gaal ga wa ja'alnaa dhurriyatahu moom nuuxin humul baaqiin kon wa aayatun lahum kiimtaan gu rëy ñeel na leen an naa nun yàlla xamal naa safoon nañ dhurriyatahum seeni maam kon ko koy tekkee fil fulkil mashxuuni ci gaal googe nga xam ne gaal gu feesoon dell la ibnu uthaymin rahimahullahu taala nee na ah damir jii day man nañ koo wooyee al jins te bañ ko wooyee al ayn mu nekk damirul jins te bañ a nekk euh, damirul ayn lan mooy damirul jins mooy njaboot goo xam ne yéen nag ñoom a bokk aw xeet ndax ay doomu aadama lañ ne na yéen ndax ña bàyyikoo ca maam nuuxin di ak njabootam te yàlla sëfoon seen maam ak ñoom ñu bokk ndekkanoo ca gaal ga yéen xeetu njaboot googee ngeen ndax ñooña luñ doonoon ay bindeef kon durriyata jinsihim maanaam nuuxin moom nun ñoo bokk wenn xeet dégg nga doomi aadama lañ ñuy tam ay doomi aadama lañ kon borom bi njabootam gam safoon ca gaal googee dégg nga loolu laayam taniw fi luxal arabiya ndax buñ jàngee wa laqad xalaqna al insana min sulalatin min tiin al insaan foofu jins bi lay wax ndax delloo gi mu ci delloo damit ran fu ma jaxal naahu nutfatan moo lay xamal ne al insaan bu njëkk ba bi mu njëkk tudd jins ba la mooy jinsul insaan jinsul insaan mooy maam kan ah maam aadama waaye xoolal bi mu ne fu ma jaxal naahu nutfatan xam nga ne maam aadama bi ñu kenn bi ñu ko ci nutfa te damir ji nekk ci suma jaam naa ngi dal ci insaan bi mu njëkkoon tudd kon jins bi lay wax ndax maam aadama ñu ko bind ci inna mathala isa inda allah ka mathali aadama xalaqaw min turaab moom ci turaab lañu ko bind doomi aadama yi ci soqi koo ci moom lañ bind ci nut fa kon loolu moom itam aw déggin rafet la baatu alfulku nag ci làkk euh, arab dañ koy jëfandikoo di ko góoral waaye dañ koy jëfandikoo di ko jigéenal waaye dañ koy jëfandikoo mu nekk mufrad waaye dañ koy jëfandikoo mu nekk jamono xata ida kuntum fil fulki la juróom wa jaray na moo lay xamal ne alfulku foofu dañ koo mu nekk jamo almashxuun mooy lu ñu feesal ci ay doomi aadama borom bi subhaanahu wa mi ngi nuy ñax mi ngi nuy fàttali xéewal gu rëy gum nu defaloon te mooy sëfoon gum sëfoon sunuy maam ci gaal goo xam ne gaal googee ba muccee gannaaw yàlla ñun ñi ca lañ juddoo loo xam ne nag su muccutoon doo mucc bu amutoon doo am loola xéewal la goo xam ne goo war a sant su boroom la subhaanahu wa taala laay jii day leeral xeetali gu suñu borom yàlla xeetali albashariya nga xam ne naam moom yàlla mere na ña nga xam ne ñoom la euh, mbugale li ñuy wax mbën ak mbën mbën muy tuufaan fa axadahum tuufaan wajrob wa hum waaye nag raafut lépp doomi aadama ndax su suñu borom yàlla raafoon lépp doomi aadama kon doomu aadama du nekk ci ko suuf waaye ba raafee ña nga xam ne si ay tooñkat lañ te mooy ñi nga xam ne yàlla daa yónni ci ñoom nuuxin ñu mooy ko dafa desal nuuxin aku njabootam ngir geneenu njaboot man cee soqi ko geneen njaboot man cee bàyyi ko njaboot googu nga xam ne ko yàlla suñu borom da leen di woo naan durriyata man xamal naa maa nuux wane suuratul Isra loolu nga xam ne ñoom lañ safoon ca gaal ga ñu ànd ak nuuxin ah yéen a wuteeg seen maam innahu kaana abdan shakura moom day ab santaakoon la woon ku daan sant la subhaanahu wa taala durriyata man xamal naa nuux innahu kaana abdan shakura boo demee itam ci suuratu alxaaq danga fa fekk borom bi subhaanahu wa mu ne gaal googu bi nga xamee ne ndox ma dem na ba jéggi dayo lii di balla ci suuf lii di jóge ci asamaan si inna lamma toxal ma xamal naakum fil jaariya al jaariya mooy assafina boobu ñu sëf leen ca gaal ga lu tax li najalaha lakum tadkira wa taiyaha udunun waaciya li najalaha lakum tadkira nga xam ne dangeen ngeen man di fàttaliku gaal googa di ci mën a yéem yàlla di mën a xalam yàlla ci muccal ga muccal nuuxin ak njabootam ga ba tax ngeen am yeen nopp yoo xam ne dañuy wattu lépp lu ñu dégg man koo wattu wa taiyaha udunul waaxiya suñu boroom yàlla daa bëgg ab jaam waxtu wu nekk rek moom jaam bi muy delloo xelam ci xéewalam yi buñ defal maam guñ defal maamaatam guñ defal maamaati maamaatam loola lépp moom jaam bi dañ ko koy fàttali moo tax banu israila suñu borom yàlla léeg-léeg mu naan leen yaa bani israila udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum dee leen fàttaliku ak di tudd xéewal yi nga xam ne maa leen ko xéewale sallaahu day bu fekkoon ne doomi aadama yi waxtu wu nekk rek ñi ngi xalam ak di xalaat ci xéewali yàlla yi di ko waxtaane xéewal yi day ngeen di doo day dolleeku dañuy gën a nekk ci naataange ndax borom bi daa wax ne bu ngeen santee ma lan leen ma dolli leen wa id taadana rabbukum la in shakartum la azidannakum saa yoo xamee ne doomu aadama mi ngi fàttaliku te fàttaliku day lëkkaloo ak sant wa huwa alladi jaala layla wa nahaara xilfa liman araada ay yadakara aw araada shukura saa yoo xamee ne yaa ngi fàttaliku rek ci ginnaaw tuuti rek da ngay mën a wax alhamdulilah waxuma la li nga xam daa jiitu suñu dund waaye sa dund gi nii rek li ci nekk ci ginnaaw soo xalaatee man day amoon na jamono lenni alxuraan xawma ko mu am ay baay yu ma yàlla sa borom baaxe ñu ne alamik danaa ko mokkal ñu mu jaral leen loo xam ne maanaa wax dëgg yàlla jëraluma ko man jamono jooja ndax man jamono jooja xawma luy alxuraan daara juñ ma bàyyi woon a saasago saa yoon daara juñ ma bàyyi woon a ma dem saa yoon yàlla ma tàggatoon bàyyi yooya noona ñu ñàkkoon caaxaan lool ci sama njàng ba ma mokkal alxuraanul karim ba tey jii ma mën koo tari nam jaadoo loolu boo delloo ginnaaw tuuti sam xel dangay ngay mën a wax alhamdulillah dangay ngay mën a wax alhamdulillah bàyyi nga xam dañoo góorgóorloon ci sa yarub diine ba tey jii nga man a jaamu yàlla di man di julli di man di woor te doo ko yëgal sa yaram sax danga koo tàmm lool te am ñoo xam ne wallaahi jug julli dong diis na gann ci ñoom ndax dañ leen cee yëru loolu tam gis nga boo delloo sa xel ci ginnaaw tuuti rek da ngay mën a sant yàlla noonu laa koy waxee ci ki nga xam ne dem na ba yàlla jox ko ay milliards wala mu jox ko ay million te ci ginnaaw mu daan taaba taaba daan yenu ba yàgg suñu borom yàlla di ko ko barkeelal di ko ko barkeelal ba yàgg léegi moom yu diis yooyu moom bokkatul ci ñi ko yenu léegi dañ ko ko yenul kay léegi dañ ko ko yenul léegi da nga ñëw ci barabam bi muy liggéey nga fekk fa lu mat mi góor yoo xam ne ñëpp ay bijaaw lañ yor kenn ku ci nekk di dabu wërsëgam ci palaasam boobu noonu te moom mii am nay jamono wax dëgg yàlla aggutoon foofu kon ku delloo sam xel ci ginnaaw tuuti rek da nga mën a sant suñu borom subhanahu wa taala yàlla delloo suñ yi ca ginnaaw gannaaw mooy ba nga xamee ne liggéeyloo na maam nuuxin mi nga xam ne moom ginnaaw yàlla ñu bànqaasuwaat ñëpp ci njabootam lañ bànqaasoo gaal gam ko liggéeyloonu mu liggéey ko mu sëf ca ñam ca sëf ba borom bi subhaanahu wa taala muccal ña nga xam ne ñoo newoon ca gaal ga wastawat alal juudiyi wa qiila bu'dan lil qawmi zalimin loolu borom baa ngi na koy fàttali bokk na ci leneen moom indilaat muy wax xalaqnaa lahum min mithlihi nu eh, bindaatal leen min mithlihi lu mel ne gaal googa loo xam ne daa mel ne gaal googa ñu defaraatal leen ci ñoom sët sët yi maayarka bu na loo xam ne bu ñuy tukkee di ci géej gi moom lañuy ñuy war maam nuuxin sunu boroom am na laay jooxane nam liggéeyee gaal ga noo noona la waxe xam nga bu ne woon alfulku rek bàyyi alfulku noonu rek man ngaa bañ a xam gaal googu ku ko bëggoon a liggéey gaal ga noo koy liggéeyee ndax gisul ko waaye xoola boo demee suratul xamar day wax ne wa xamal naahu ala daati alwaax wa du wa du sur maa ko sofoon ci loo xam ne dañ ko liggéeyoon ci ay alwaax xooloon noonu la ñuy liggéey gaal wa dusur mooy ay pont dégg nga ay pont dusur ay masaamir nga xam ne kon ndeke alwaax yooyu la ñuy boole ak dusur yi ñu mën leen ak kole ñu daal def ak gaal ñi nga xam ne dañoo sotoo ci maam nuuxin borom bi nee na ma ma defaraatal leen mooy lan ma euh, jox leen xel yoo xam ne danañ ci mën a sotti gaal gu mel ne ga nuuxin waroon ndax nuuxin kat suñu borom yàlla da koo liggéeyloo gaal gi ngir mu mën a jaar ci ndox mi mucc te nun tam gaal yi dañ koo soxla ndax dañoo bëgg a jaar ci ndox yi mucc tey jii demee nañ mi misli yi jooju bul defee ne day nuróog moom bay benn misli lu tekki ne day nuróog ak moom ba benn ma jox la misaal ci lool allahu alladi xalaqa sabaa samawat wa mel ni ardi waa léegi suuf yi nga xam ne juróom-ñaari suuf la ndax dañoo mel ne asamaan yi bay benn de dañoo nuróo ci doon juróom-ñaar rek waaye nuróo ci des loolu moo ñu yóbbee ñu dem ba suñ jamono suñ jamono ñu romb gaal yooya ba liggéeyaat loo xam ne naam gaal lay doon waaye day gën a moderne bal bato sax bato yoo xam ne tey ba tey rek maanaam forme gaal lay yor waaye nag dana gën a avancé dana gën a euh, taaru dana gën a méngoo ak jamono dana gën a méngoo ak jamono nga xam ne da ngay gis bato boo xam ne bato boo xam ne daara ji yëpp bato boo xam ne daanaka xaw naa toll stade ci gàttal léegi-léegi sax ay ay stade nekk ci biir bato bi euh, xam naa ñàkk ña ma ma ñàkk bàyyi xel yàlla nag lu doy waar la maanaa gaali yi nii ak bato yi nii euh, daana mooy yàlla jëm ah gis ñu nekk ci biir bato yi naan sàngara fii boo nekk ci biir bato bi da ngay mel ne da nekk ci sa néegu bopp ni nga xam ne boo nekkoon ci ab avion day mel da nekk léegi am na am na foo xam day mel ne ñu nekk première classe nga xam ne ñoom lañuy la ñuy fay ak ñee duñ bokk dégg euh, dañuy mel na seen néeg da ngay mën a da mën a jaaxaan dangay ngay mën a nelaw am am ndox am ndox sëriñ bi aw xeer soo ko tëmbalee ci ndox mi ndox mi mënu fóotee mënu fóotee day jàll ndox boo ci tëmbalee aw xeer du ko téye kon lan moo tax mu téye ab bato lan moo tax mu téye ab bato dépp gone gu ndaw su ma jëlee saaku ceeb yan ko ko mu ànd ak moom góor sukk benn saaku ceeb ndax danaa xalaat kon di jël ab bërigo di ko teg déedéet waaye borom bi daa jàngale ci alquran luy wane ne moom moonu tàggatal géej gi suratul jaasiya allahu alladi saxara lakumul baxra allahu alladi saxara lakumul baxra yàlla moo leen tàggatal géej gi lan moo tax li tajriyal fulku ah bi amri ngir lan gaal yi di man di daw ci ndox mi bi amri yii ci ndigalam gaal yi ci boppam ci ndigalu yàlla la ñuy dawe alam tara annal fulka sóoratul xas laa bëgg nekk alam tara alam tara annal fulka tajri fi lbaxri bi nicmatillah alam tara annal fulka tajri fi lbaxri bi nicmatillah nga nekk ci biir géej gi nekk ci biir gaal gi di nelaw dangay nelaw mel na yaa ngi ci sa néeg léeg-léeg sax gaal gi ñu wutal ko ay néeg yoo xam ne mu gën a rafetee sa néeg yi bopp yi muy daw dégg nga jóge ci benn continent demaat ba beneen léeg-léeg maanaam muy sëf yoo xam ne ay conteneur lay doon nga tëdd fii di nelaw sa conteneur baa ngi ñëw yàlla di la sàmmal sa conteneur boobu nga xam ne ba ni mu accès bi dara manqué ci te ca am ndox la newoon da ngay xëy rek ñu wool nga ñëw wàcce lépp indi di mën caa am alal ju dul jeex wal fulki lati tajri fil naas gaal yi nga xam ne dañuy daw ci biir géej gi bima yanfa'u naas ci loo xam day jëriñ nit ñi baraana loo sol loo xam ne baraana tey jii sa kër lu ko rafetal loo xam ne si mi ngi jaare ci lan conteneur yooyu la jaar ñëw yooyu mënut a ci avion am na yoo xam ne mënut a dugg ci avion naam am na jaar ca kaw jaww ja di dem nga xam ne mooy jaar ci bato bi léeg-léeg ay yu mag ay chars de combat ñu dugal leen ci biir bawaaxir yi muy dox ndànk ba ak si indigo yooyu da nga ko mën a dugal yi bu lee dee dem ca kaw jaww a yàlla tàggat jaww ja noonu la tàggate lan jéeri ji moo tax ci alxuraan sóoratu Yuusuf dane huwa alladi yusayirukum fil barri wal bahri moo leen di tasiir moom yàlla huwa alladi yusayirukum fil barri wal bahri maanaam jéeri ji nii ak jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu tàggatal ñee dañoo takk ay fas ñee takk ay mbaam di ay saret moom lañ am ñee ay engin lañ am ñee ay welo lañ am ñee ay oto lañ am ah kenn ku ne mooy ay jumtukaay yoo xam ne borom bi nee na dama leen koo defal ngir ngeen ma ci sant waaye tam ngir ngeen man ma cee xam kiimtaan yi yépp doomu aadama yaa ngi koy dund waaye bàyyiwuñ ci xel wa xalaqnaa lahum min mithlihi maa yarkabuun léegi borom bi daal ñuy fàttali lu rëy mooy gaal ni mu ndox moo la wër ci wet yëpp bu doon sax ci jéeri ji la léeg gis oto léeg-léeg gis oto buy daw fële nga wétli ko tuuti léeg-léeg gis maanaam ancien buy daw fee nga wétli ko tuuti waaye bu dee fii ci gaal gi moom ci biir géej gi moom lépp ndox la lépp ndox la borom bi nee na wa in nasha bu neexoon sunu neexoon nun yàlla nuxriquhum nu labal leen loolu amul werante ndax ndox mi maa koy jox ndigal maanaam mu mën a taawu ay ponkali bato yoo xam ne la ca nekk ci ay ton kenn xamu nu mu toll su ma santoon gaal gi mu taxaw dégg bu fekkee ne yi nga xam ne am li ñuy wax voile la nga xam ne ngelaw li moo leen di yóbbu boo demee ci sóotu Shura dane iyasha yuskini riix su neexoon yàlla ngelaw li du upp du upp te ngelaw li moo lu yóbbu gaal gi da koy dalal ngelaw li dal du uppati bu ko defee fa yaslal naa ñoom gaal yi dañu mujj rawaakida ala waari duñ dem du dikk kon yéen su ngeen mënee dugg ci gaal yi ba teer mën a wàcc seeni godaar mën caa jëriñu war ngeen sant seen borom subhaanahu wa su ma neexoon man yàlla ma labal leen te su ma leen dee labal kat fala sariixa lahum muy amul kenn ku leen mën a xettali baatub sariixa mooy muriis loolay tekk ci laa ko arab mooy koo xam ne boo yuuxoo mu mën a ñëw wàllu la borom bi da koo noo xam ne nakira fii si yaaqin na fii la ko dàqe mooy sariixa nakira la laa ko muy laa naa fi mu ne laa ilaha noonu lañ dàqee falaa sariixa amul awul kenn ku leen mën a xetli su boobaa du jinne du malaaka du nit kenn laa wax mu leen a xetli su boobaa wala hum yunqazuun te duñu leen mën a ku leen di wallu falaa sariixa la mooy amul kenn ku leen mën a wallu ndax li ci gën a doon doomu aadama saa yu xamante day yuux muy suraax day yuux woo wooy bu fekkee na tiit lool lañ ko may yuux mën naa am mu tudd nit mbaa mu woo nit fàttali na gaal gi ci boppam ndox mii mu nekk nii borom bi ci boppam moo ko tàggat mu nekk fi moo tax lii mu wax nii lu mat bàyyi xel la su ma neexoon ma labal leen te du ngeen am ku leen xettali bu ngeen walloo du kenn du wallu si ndax sax dañ ko dul yëg bay xam ne yéen a nga ca ay jafe-jafe wala ay jafe waaye nag su ma neexee itam nag ma bañ leen a labal mooy mu muccal leen ba ngeen ak seeg jàmm man saa yoo xamee ne dugg naa ci avion ba wàcc waxuma gaal gaal mosuma mosuma koo dugg ay asafar la gaal laa dem ak gaal da eh, dugg naa ci moom maanaam bato laa duggut dégg nga waaye waaye waaye boo boo boo boo wàccee nii xaw doo waar ma doo waar ma ni mu doy waar maanaam moom su wàccee day mel ne fi mu toll nii nag mu ngi soo a gërëm nag yee fii moo wër di moom xanaa xamul ne ba tey fii mu nekk wuru aal ma jukki boobu maanaam doomu aadama day am fu am xelam di gën a dale rek waaye doomu aadama bu fekkoon ne xalaat na dëgg-dëgg dana yéeg ne jéeri ji ak géej gi ñoo bokk benn atte daaw dama la koy delloo léegi borom bi day wax ne afa amintum ndax da ngeen a wóolu an yaxsuf bikum jaanibal barri yéen wàcc ngeen ba nekk ci jéeri ji di dox nii banaan yée ndegam gaal gi agsi waaw kan moo leen jox kóolute ba mënumaa digal suuf si mu wonnu leen afa amintum an yaxsuf bikum jaanibal bari wala sax léegi ma bàyyi suuf si mu ne degg noonu waaye ma ma tëmbal ay xeer aw yursila aleykum xaasiba ma taw ay xeer ci seen kaw <coughs> te su boobaa du ngeen am kenn ku leen mën a li ca loola summa laa tajidu lakum wakiila ñaar am na génn nga ci géej gi yaa nga naan alhamdulilah moom de yàlla alhamdulilah ndegam gaal gi ñaari fan am nañ ko géej gi soog a ñëw waaw léegi kan moo la wax san kan moo la wax ne la kan moo la jox kóolute ne la suuf si mënu laa wane léegi léegi nii tremblement de terre bi am Turquie ak Suria fan yi yëngatu bu tuuti diggante bu gàtt gàtt la yëngatu lu xoromu da caa am lu yéeme waajoo xam ne dafa ñëwoon ci ak kër doon ko luyee waaji luyee ko ko ba yàgg mu jekk-jekk rek daal di koy génne waajooju noonu nga xam ne moo ko génne woon bi suuf si wannee këram moom ak kam génnewoon ñoo bokk nekk ci fa ñu wax al malaaji ñoo bokk menn benn xayma bu ñu leen sampal ni ñu nekk bokk fa nekk di kotamu noonu dégg nga xam ne mu wan nañ ko léegi suuf sa wan na ko bi nga nekkee démb di jaay ne patron la tey tey tey kan moo leen jox kóolute ne mënumaa digal suuf si mu wan leen mbaa ma tëmbal ay xeer ci seen kaw te du ngeen am ku leen xatli wala leneen am amintum ay yuidakum fii taara uxraa wala léegi mbir ma bu demee ba dal nga jekki-jekki rek daan ne xaaral ma ñu ma ma tukkiwaat fàtte nga maanaam euh, yu doy waar ya nga dundoon ba tax na fi mu toll tey yaa ngi duggaat nii fas yéene demaat man maa leen di delloowaat su ngeen delloo fa yursila aleykum qaasifa min arrih fa yuxriqakum bima kafartum summa laa tajid lakum alayna bihi tabia kon doomu aadama amul fenn foo xam ne amee na fa kóolute xelam mën a dal nii mu mën a toog rek ne gëriif noonu déedéet xanaa mu wéeru ci yàlla mi nga xam ne mooy al mu'min aw turam la moom yàlla al mu'min mooy kuy joxe sécurité al mu'min mooy kuy joxe al amnu koo xam ne fu waay nekk rek allazi at'amahu min ju'in wa amanahu min xawf Sénégal gii bu fekkee dañoo dem ba jamono joo xam ñu bari dañuy ñoddi ak a xëcc luñ xamut muy aw ay dañ koo dund dundagut moo tax dañ koo dundagut waaye bis buñ ko dundee su ma bon joxe misaal damay joxe misaal ci ñaari dëkk yoo xam ne ma nañ fi am ay jafe-jafe yu tàng jaar booba la la gëj booba la gëj ndax booba mos nañ ba xam yëf yi nan la demee borom bi day wax ne alam tara ila alladina qiila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu salaa wa aatu zakat xanaa gisuloo ñi nga xam ne dañu leen a sant na leen xeex déedéet kuffu aydiyakum saxaaba yi ci njëlbeen nga léegi la ñu ne waaw noonu yi xam nga noonu yi bëgg a xam nga li xat ay ne kuffu boobu ñu ngi leen di tàggat ci laa ilaha illa allah ñu ngi leen di tàggat ci wéetal yàlla fukki at ak ñett ñu ne leen kuffu aydiyakum wa aqimu salaa wa aatu zakat waaye bañ demee ba dogal ci ñoom xeex fa lamma kutiba alayhimul qital ida ci mbetteel ida mbetteel la ci ci mbetteel rek fariqun minhum yaxshawna annaas ka xashyatillah aw ashaddu xashya maanaam bi jees yi daanee génn ñu wóoree na man déegu doy li ñuy wax déegu doy xëpp léegi taaw na nga am mbetteel maanaam ci yaxshawna annaas ka xashyatillah ragal nga metti na kon ka xashyatillah luñ doon wax rabbana lima katabta alayna alqital lawla axartana ila ajalin qarib uxut borom bi nee na walaqad kuntum tamannawna almawta min qabli an talqahu faqad raaytumuhu wa antum tanzurun lu ngeen di daw Uhud ba xeex ba tàngee dañoo daw inna alladina tawalla minkum yawmal taqal jamaan innama stazallahum sheytaan bi ba'di maa kasabu borom bi ne ah yéen di yéen ko doon nëwét yéen wax salaa salaam naan ko waaw nañ gën xeexi noonu xam ne ñun yonte bi neen laa tatamannaw liqaal abdu wi bu leen mébét dajeekum noonu jamono bi nga nekkee ci jàmm ak salaam ñaanal yàlla saxal jàmm ji ñaanal yàlla saxal jàmm ji am na nu muy demee julli gu wóor goo xam ne ngay teewlu doo ko mënati ndax nang ngay jullee di teewlu te ah, ñuy dóor ay bal fii di dóor ay chars de combat fii lacrymogène yi fu ne moo fa bàyyi ko di jëm loolu nan ngay teewloo fan ngay teewloo fan ngay teewloo nan ngay waree koor gu baax léegi gis koo xam ne day jeg-jege yónnee ak ndéggat xeex mënta ñàkk faaw nu xeex bu xeex jotee kooku riir lay def doo ko teg fet doo ko teg bët doo ko teg bët li ci gën a bari ñu mel noonu ñooy gën a rëy ay làmmiñ muy naafiq yi yaxsibuuna kulla sayha alayhim wa ida raaytuhum tujibuka ay ay ponka lañ ci doon li ci gën a bari ji tujibuka aj saamu bu ñu waxee way yaqulu tasma li qawlihim waaye ak ñoo ñàkk solo kaanoom xusubu musannadat jullit dëgg-dëgg day féeteeg boromam di tàggat boppam ci jaamu yàlla di tàggat boppam ci julleeg woor bu demee ba nga xam ne mënta ñàkk nag mu xam ne mënta ñàkk waaye du ko xëcc mukk du ko xëcc mukk wa in nasha nuwriquhum fala sariqa lahum wala hum yunqadun ah xanaa saa yërmaane ñëw dabu leen illaa rahmatan minna est-ce que su ma neexoon ma labal leen maanaa problème juddu ci biir gaal gi problème boo xam ne waa gaal kenn mënu ko cee régler waaye simila ak saala yàlla mën na koo régler léegi ndax yërmaane mën naa dab xoolal ka nga xam ne daa fekk ku nekk ci aw jën mm, maam nuuxin wala maam yunus wa inna yunusa la min al mursalina id abaqa ila fulki al ba ko jën wa wan xanaa kay wax dëgg yàlla aw jën kum won na la la xel nangu mooy sàq mi la la war a def ab tibb kay boo ko dugalee sa gémmiñ gi sàq mi doo nga ca des te yàlla dane fal taqamahul xuutu jën wa da wan waaye ci biir jën wi la xam ne wallu ñu wallu ko faatagut ñu wal ñu wallu ko rombagut diggante xàcc dóor ni mbalul yàlla xaj na fa olof dana ko wax mu daat ni laa ilaha illa ant subhanak inni kuntu min alzalimin borom bi nee na damaa boole lii loolu tayam lii ak nam ko daan defee démb du fii dong la koy soog a defee laataa ba jën wi di ko wann daana ko def falawlaa annahu kaana min al musabbihin kon fa lay nekk ba yowmal qiyaam waaye li jiitu jën wi di ko wann daan bokk ci ñu daan sabbal la labisa fi batnihi ilaa ilaa yawmi yub'athuun xool ki nga xam ne daa bàyyi ba waxtu woowee mu soog wax jublu ca loolee te musu koo def xata ida adrakahu algaraq moom firawna qaala amantu annahu laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin ñu ne ko wa qad asayta qablu wa kunta min almufsidin kon li lay xet tey day fekk muy lu jiitu woon dangay ngay xam yàlla bi nga nekkee ci yomb di tudd yàlla bi nga nekkee ci ak yomb soo nekkee ci ay xat-xat boo tuddee yàlla rek yàlla ñëw kenn ci nit ñu baax ñu mas naa dugg ci ak gaal yi fii lambaajoo mu teg ci kaala gim takkoon ci bopp bi takk ko ci digg li ne ko yaa xayyu qabla kulli xay wa yaa xayyu baada kulli xay askini riix yow mi nga xam ne ba ngay dund kenn dund te yaay wéy di dund kenn du dund teel nu ngelaw li ngelaw ni teg ni teg <laughs> wana yàlla sama borom subhaanahu wa taala udroni astajib lakum illaa rahmatan minna suma yërmaane dong moo leen mën a xettali gaal gi teguwaat ci yoon wi maanaa newaat noj noj ñëpp ginniwaat gëriif léeg-léeg sax ay yeneeni euh, euh, ay ndimbal ñëw ndax euh, gaal gi bu jàpp ne maanaa ñu nekk ci biti amu ñoom relation ah kay ba léegi ñi nga xam fiñ toll nag nañu jànkonteel mën nañu yebal ñu ñëw xettali leen yéen a koy gis yéen a koy gis ci yenn kii man mas maa gis Dakar loo xam ne sëriñ bi yàggut sax lool lool lool lool su maa gis lu gën a yéemee noona ab oto buy tàkk oto buy tàkk waaye fi muy tàkkee mm, daa taqaloo ak oto boo xam ne oto yi def ndox nii oto yi def sa tournée ndox yu yooyu maanaam fi muy tàkkee ak fi oto boobu nekk ñoo takkaloo man waaja xamuma fu mu jëmee woon dooma waaye raakool ba jël la jël rek jëmale ko ci tàkk-tàkkal digg su kat mu fay fa kay fa su fekkoon ne maanaam ba muy tàkk ndox moomu néew fa xoola suñu borom yàlla bu la bëggee xat li yàllay ni mu lay jegee yàllay xat li ni mu lay jegee su la bëggee xat li laa wax bu la yërmaaneem bëggee dab su la yërmaaneem bëggee watlu wallu te mu ëpp yërmaane mbindeef yépp mooy arrahman mooy arrahim yërmaane ji mu am ci ab jaam ndeyam amuko ci loolu moo tax boo nekk ci ay xat-xat sa xel warut a nekk ci kenn ku dul yàlla kenn ku dul yàlla sa xel warut a nekk ndax keneen ku sa xel nekk yàllaa ko ëpp yërmaane ci yow yàllaa ko gën a gaaw ci xetli ab jaam illaa rahmatam minna minna waaye nag bu ñu leen xetlee ba ngeen ñibbeeg jàmm day du da ngeen di wéy di béel dong de da ngeen fi bànneexu aslëf wa mataan ila xiin kon àddina nekk daa am fu mu yem man ngaa <laughs> foofu la dégg moom bëgg dem yàlla lu dimbali nu dee waaye léegi tuuti léegi léegi léegi léegi nekk te tuuti nga dee tuutee la dese nga dee de waaw wa mataan ila xiin dong la de àddina ñu àddina ñun tuute ñu fi des waaw tuute ñu def tuute ñu kenn ku ne sa ak sa tuuti nag kenn ku nekk sa tuuti waaye kenn ku ne moom li nga ko def sa bëriwut moo tax suñu borom subxanahu wa bi muy tudd ci yenn laay eh, maanaam maraaxil yi doomu aadama jaar marxala bi mu juddoo rek daf daal di teg directement marxala bi mu dee wa laqad xalaqna al insana min sulalatin min tin summa jacalnaahu nutfatan fi qararin makin summa xalaqna nutfata alaqa mi ngi tudd marxala fa xalaqna al alaqata mudga fa xalaqna al mudgata isaama fa kasawna al izama lahma thumma anshanahu xalqan axar fa tabaraka allahu ahsanu alxaaliqin thumma innakum bada dalika la mayituun la mayituun thumma innakum bada dalika la tëb ma sa dund gi dafa gàtt gàtt ba yàlla ko foofu lépp da ko da ko taxañ bi nga juddoo ak bi ngay dee daanaka benn lay doon <laughs> yàlla xam na ko waaw bi ngay juddoo ak bi ngay dee daanaka benn lay doon benn daanaka benn la bala nga ko xam mooy nga tëdd ci laal bi nga war a faatoo afara ayta im mattaanaahum sinin summa jaahum maa kaanu yu mattaawun ganaar ya nga daan rey rek afra war a dee maa yu mattaawun kër gu rafet nga xam ne moom fa nar a bàyyi oto rafet yi nga fi nar a bàyyi war a dem tëdd ci suuf xaar say morom tey nga bi àddina bi mu ñàkke solo lenn war na lenn war nañ ko fay nekk lu ma lu may jaamu yàlla ah? sëriñ bi fii dara xaju fi lu may jaamu yàlla laa wax ah, xanaa lu nuy di lu ñuy dimbale ci jaamu yàlla dafa gàtt dafa gàtt diggante bu gàtt gàtt nga dem sa yoon te booy dem kat benn waaye damaa wax ne ma nema ma ne ma ne ma ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo tukki ndax ñoom bu ñu tukkee dañ fay yàgg lool lool lool lool ab ab kii aw xeet la ci Sénégal gi damay bañ a teen tudd seen tur ñoom bu ñuy tudd ay France la ñuy faral dem waaye dañ fay mën a yàgg ay ñaar fukki at yooyu waaye ndekete xam lu si jublu mooy buñ ñëwee duñ demaat comme di tukkee ñoom kay dañu dem benn yoon rek lañ fa war a am lépp ñu am ko fa benn yoon ñëw toog di lekk lañ amoon ba mu ko waxee waaj bi ma koy ma ne loolu de mooy dee waaw loolu de mooy dee dëgg dëgg dëgg maanaam nekk ñun ci tukki lañ nekk bay boo ngeen góor góorlu tukki bi ngeen nekk nii julli woori alxuraan ji ndax kat bu ngeen xasee dem la ngeen doon euh, liggéey fii dong dong mën na fekk dégg nga waaw la ngeen doon liggéey fii dong dong mën na fekk suñu borom yàlla nee na tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum wala tusaluna amma kaanu yaamaluun suñu borom subhanahu wa taala kon nee na wa in nasha nughriqhum fala sariqa lahum wala hum yunqadun illa rahmatan minna wa mataan ila xiid wa ida qiila lahum ittaqu ñoom yéefari saa yuñ leen ne ragal leen maa bay na ay diikum mbugal mu leen yàlla saa boroom nara mbugale fii ci àddina wa maa xalfakum ak mbugal mum leen nara mbugale fa ca àllaaxira su ngeen topput yàlla jawaab ba da koo dagg idaa day am jawaab waaye jawaab bi dañ koo dañ koo dagg laallakum turxamoona ndaxte lee yàlla man leen a yërëm borom bi nee na suñ leen dee waar ñoom yéefar yi naan leen na ngeen moytu nekk ci seen bakkaar yi di ci nuur ba yàlla di leen indil mbëggalum àddina wala ngeen dee yàlla far sofale ñaari mbugal yi muy mbugalum àllaaxira tey ngeen a wattandiku yàlla tey ngeen a ragal seen borom yàlla subhaanahu ndax lee yàlla man leen a yaram nee na dañ lay dumóoyu waaye dañ lay dumóoyu jooju da koo dagg kan moo leen ko wax itam indiwu ko wa ida qiila la wax loolu daa bokk ci li tax arab di ko jëfandikoo mooy bàyyi ko mu nekk am nga xam ne yow mii mën nga leen ko wax keneen mën na leen ko wax keneen mën na leen ko wax mooy képp ko yàlla na namut ci moom aw yiw rek soo ko bëggee wax ne ko na moytu na wattandiku na waaru ndax yàlla mën koo yëram li ci gën a bari dala du muy dalay du muy waaw ndax sunu borom subhaanahu wa taala daa bokk ci ay dogalam mooy kum bëgguta dimbale kàddu gu lay jëriñ du dugg ci yow saa yoo xamee ne uqimat alayhim alxujja wa balagathum daawa wa wuizu saa yu leen waaree du leen jëriñ loolu liñ ci déggee mooy doomu aadama su su duddoo diine yàlla ji mbëgalum yàlla mën na koo dal fii ci àddina wala mu dal ko àllaaxira yàlla mën na koo dal fii ci àddina wala mu dal ko àllaaxira mooy su fekkee ndaawaan ginnaaw suñu borom subhaanahu wa taala waaye itam laallakum ji li taalil la mooy ngir yàlla ci boppam man laa yërëm faw da ngay topp ndigali borom bi subhaanahu wa taala bàyyi ay tereem loolu ci la jaam bi di mën a mucc ci mbugalum borom bi subhaanahu wa taala borom bi ne ne wa maa du leen ñëwal min ayatin gennu kiimtaan min ayaati rabbihim ci kiimtaani seen borom yi illaa kaanu anha muridina lu may nga xam du mooy nañ amul genn kiimtaan gu leen di ñëwal ci kiimtaani yàlla yi lu may nga xam ne war nañ ko ginnaaw moo xam al ayatul kawniya la moo xam al ayatul la bu dee kiimtaan yi nga xam ne moom la yàlla saabaroon di feeñal léeg-léeg li ma wax léegi tremblement de terre wala suuf su yëngu su nga xam ne fan yi rek am na am na ñoo xam ne xam nga lu ñu koy jiñe dañ naan daaka shay'un tabii nature bi la nature mooy faral di doxee noonu duñ ko delloo ci borom bi de subhanahu wa taala ah, duñ ko faral di delloo ci borom bi subhanahu wa taala surtout ñu nga xam ne wàllu science ci la ñuy yëngatu noonu fa la ñuy mbir mi day rëy lool ñu mën cee dellu ci yàlla ñu nekk fa di di naan dañ ko in lañ ci télé bi ñu costume sëriñ bi maanaam euh, di wax dañuy xam analyse mbir yi luñ ci analyser wa maa nursilu bil ayaati illa taxwiifa loolu ay kiimtaan la yàlla da ciy bëgg a ragaloo jaam yi bu ko def bu ko analyser bu bàyyi nag niu saa bi li mu wax fii tey waxu fi dara waxu laa la wax nii ndegam ay laay dara la fi waxut ñooñu di analise mbir yi kenn gënu leen doy waar ndax ñoom mbir yi dañ koy ay asbaab lañ koy naan xam nga suuf si ni mu tëddee woon jamono jooju euh, bi mu kee noonu hmm. borom bi subhanahu wa taala nee na amul genn kimtaan goo leen mën a indil ci kimtaan yàlla yi lu may nga xam dañu ko mën ginnaaw moo xam alquranul karim la alquran sax soo leen ko waxaloon jàngal leen ko li ci yàlla sa borom wax mën nañoo am sax ñuy di naa waaw xam nga loolu science waxoon na ko bo moo li science wax noonu rek science ñu science kañ la science nit la science xanaa du xelum nit yàlla li muy wax ëpp na xelum nit science mën naa dem ba dëppoo ak li yàlla sa borom jàngale waaye suba kon daa ñëw fekk si waxi yàlla mi xam lépp waaye duñ jël mukk naan waaw xam nga ne laay ji euh, déedéet loolu soxla wuñ ko saxaaba yi ba ñu gëm yàlla di wóolu yàlla bam jaral leen ñuy génne àddina di génne àddina booba xamuñu sax luy loolu yooyu ci ay gàllankoor yi la bokk waaw gàllankoor yi ci la bokk donte nag baax na naam euh, ndax su fekkee ne ka koy def ku gëm yàlla la ku kuy delluwaat ci yàlla la loolu amul problème waaye li ci gën a bëri ay ay gaay lay doon yoo xam ne si daanaka yeneen la ñuy gëm sax far ah dañuy toog di analyser loo xam ne sëriñ bi ba ko ba ko yàlla jàngalee kenn xamu nu mu toll ba kenn xamu nu man man at la borom bi ne ne wa iyaraw kisfan min as-samaa'i saaqita mel noonu fi ne buñ gisoon ni aw niir yu waaje wadd nii sax ma fa nekk di ko analyser noonu naan li lii da xam nga li saxaabu markuum la ah? yëf yi du noonu borom bi subhanahu day indi ay kiimtaan bëgg nit ñi ragal mën mën a dellu ci moom wa ida qiila lahum laay ci la ñuy taxaw suñ leen waxee anfiqu tée ngeen a dundale tée ngeen a financé mimma razaqakum allah ci lii nga xam ne yàllaa leen ko wërsëgale bu fekkee ne dañoo wax ñi nga xam ne dañoo am alal ju dul jeex waaye gëmuñu yàlla ñi waxtaan ak ñoom naan leen tey ngeen a jël ci seen alal ji ngeen dundale ko wa ida qiila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qaala alladina kafaru lilladina amanu ñi weddi yàlla xam nga lañuy wax su boobaa di wax ak ñi ñi leen di waar te mooy ñi gëm yàlla di leen waar naan leen tey ngeen a jël seen alal ji ngeen joxe ko dundale ci ci yoon yàlla gannaaw yàllaa leen ko wërsëgale dañ naan leen léegi anutimu ndax noonu dañ fi nekk di di di lel man koo xam ne law law law yashaa allah lawee yashaa allah mu neexoon yàlla atamahu mu jox ko lu mu lekk gis nga kon ñi ngi làqutoo dogalub yàlla al ihtijaaju bil qadar ña ngay làqutoo dogalub yàlla ña nga naan waaw ah waa xanaa yéen waxuleen ne yàlla moom moom moo mooy wërsëgu jaam ñi xanaa waxuleen ne yàlla wërsëgu jaam ñi ah bu fekkee yàlla wërsëgu jaam ñi kay wax dëgg yàlla léegi kon lu ngeen di sant ñuy jël sunu wërsëg yooyu di ko jox ñoo xam ne bu neexoon yàlla ci boppam mu jox leen lañ laaj di yéen dëgg ngeen sànq kot in illa fi dalaali mubin yéen nekku leen ñu may ñu nekk ci ak réer gu leer naññ foofu liñ fi jànge ay tomb la yu bari ba ca jiitu mooy saxal li ñuy wax coobare sunu borom subhanahu wa ta'ala yéefar yi ndeke am na ci ñu nangoo saxal coobare yàlla ndax ña nga naan anutimu man law yashaa'u llahu at'ama waaye itam dañ ciy dégg ne ab yéefar manis na koo waar manis na koo delloo ci yàlla waaye nag du ko jariñ dara ndax soo waxee lii mu wax la ca des biñ ne leen anfiqu mimma razaqakumullahu dara warta woon nekk seen tontu lu may ne ah gannaaw yàlla na ko war sëgal kat te ñi ay jaam yàlla lañ bay boo nu topp li ngeen nu sant nu def ko waaye gis nga ne fa ñuy làqutu mooy dol dellu ca dogalub suñu borom subhanahu wa taala mi ngi mel ne ki nga xam naan ko te nga bàyyi mas naa ko wax am mandikat fii duma ko fàtte mu ko boobu maa ngi rajo diisoo di def waxtaan ma génn fekk am màndikat bu taxaw ci buntu bi am ko naa ma sëñ bi comme yow da ngay wax ci wàllu diine te ngaa war sëñ bi ma tàmbali wax ak moom ne ah wax ko ko wax ko ko moom yàlla ah, lii fi yëpp ci moom la bàyyi ko di ah ah mandi géeg lépp rek da <laughs> loolu tax moom maa ngi ex ci jaajul xadar ah. mu ne mu ne dama wax baagal mu ne wax ko ko ah mu ne wax dëgg yàlla maanaam lim lim la lim la wax laa lay wax fi mu toll nii tembe ah sama wajur rahmatullahi alayhi nee na mas naa dugg ci oto du ma ko fàtte moom itam moo ma ko mas a nettali nee na am kuy saxaral la daan wax saxaral mooy tux nii kuy tux danaan kuy saxaral nee na dama ci duggoon kuy saxaral nee na mu daal di mu daal di mu daal mu daal di xëcc daal di bàyyi bàyyi bàyyi saxar si tasaaroo nee na daal di sigi xool ma ba yàgg ma naan ah waa sëñ bi. Eh, maana yaa ngi may xool de ma ne ko ah, maa ngi lay xool kay mu ne ma moom nee ko yàlla lay de man maa ngi fii ci àddina di def lu ma neex su ma dajee ak moom na def li ko neex wallahi loolu la wax sama baay nee na ma ne ko dégg na ko li nga wax nii dégg na ko dégg na ko dégg na ko xoolal doomu aadama fi mu mën a àgg fi mu mën a àgg koo xam ne sëñ bi aw yoo dong mën na koo tee nelaw aw yoo dong dong mën naa nekk ci biiru sànkeem du nelaw melentaan dong mën naa dugg ci yére yi li feeg duggul ci ab rokk génne ko ñëw toogaat du am jàmm di tëkku ak di sóoru suñu borom maa ngi tëkku sax waaye sóoru suñu borom yàlla subhanahu wa taala ñi nga xam dañoo xuus ci ay xeeti mooy yàlla nii yàgg ci lool lool lool dañuy amaal yeneen lay yoo xam ne bi muñ ne la ah waaw yéen médd mi ngeen di lekk nag ñu ne ah médd gën a dagan lu ñu rendi di médd yàllaa ko rendi di yéen yéen yéen ay rendi yéen pour mu dagan léegi lii yàllaa ko rey moom borom bi nee na wa inna shayatin la yuxuuna ila awliyaihim li yujaadilukum yéefari bu ñu leen masaan wax ne leen bu leen lekk loo xam ne dafa medd dañ naan médd mu gën a dagan lu ngeen rendi ndax yéen li ngeen rendi yéen a ko rendi te bu dee li yàlla ko rey yàlla moo ko rey yàlla naam moo ko loolu werante wun ko maag yéen noo ci lépp lu dee yàlla ko rey waaye yàlla moo santaane ne nangam ji muy xar mi muy bëy wi muy nag wi bala ngeen koo lekk na ngeen ko lan rendi te dem nañ ba li wax léegi science dem nañ ba gis ne ndekete yàpp woo xam ne dañoo rendi xarma ak yàpp woo xam ne dañoo rendiwut wut ma ñaari yàpp yi sax bokkut boo demee nga nga tàppee google nga xool maanaam alfarqu li teqale diggante yàpp woo xam ne dañoo rendi ak yàpp woo xam ko rendi man dañ lay jox suura bi nii nga xam ne dañ koo rendi wut maanaam lu lay gaañ yow doomu aadama rek moo ci nekk loo xam ne baaxut ci sa wér-gu-yaram kese moo ci nekk te suñu borom yàlla xam gi mu xam loolu moo tax mu la koy rendi loo ci aw turam ba noppi itam danaan la nga rendi ko ci aw turam wala mi mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq saa yoo rendee te tuddoo yàlla rek borom bi nee na loola fisq la kon nag nu bàyyi xel bu baax a baax ci ne sunu borom subhanahu wa taala kenn du laytoo ay dogalam soo doon dox ba yàgg fekk yaa ngi waaxu waaxu mu tàng-tàng ba yaa nga dajee ku ñuy wax daawuda ne ko ndakaaru laay laaj tëlim ndakaaru bi mu ne yow mi ndakaaru nga jëm nga ne ah, mu ne ah ba ñokalo ko baa la jëm léegi ndax waa dana waa loolu yàlla ko dogal di dem rek ah noonu lay def day taxaw ne la waa léegi man nan la nan nan laay def ba delluwaat ñu jëm ko teg ci aw yoon kon kenn du te moo ne kooku de mi ngi jéemal bu fekkoon ne dañuy laytoo dogal man naa delloo na yàlla dogal ma réer noonu rek kon bàyyi ma ma dem noonu rek dégg nga doomu aadama du def noonu saa yu jaaree ci aw yoon waxandu aw yoon buñ ne ko yoon waa ngi nii na bàyyi yoon woom ne woon te jéem a jaar yoon wa nga xam ne mooy aw yoon yàlla na yàlla sama borom defal ak dégg ak topp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin